njabootu Macky Sall bari fi lool njabootu keneen ak keneen bari fi lool waaye ku mel ni ki nga xamante ni mooy Sylla Dia amul fi ndax macha allah mi biir kees waaye di yëkkati alalam di defal waa kees di jël jeunesse su kees yi di wutal liggéey nii xëy di yóbbu seen kër. di jàppale jeunesse bi di jàppale artistes yi di jàppale femme de développement yi kon Siré Dia mi tàcculee ma ko bu baax a baax a baax a baax nag tey jii bu ma ñëwee fii si biir dañu leen taxaw tëgg drapeau bu mag feesee ne see delloo njukkal ki nga xam mooy DG Siré Dia dama bëgg nu la xam ni li may def defuma ko ngir koom-koom ndax du fekkee koom-koom kese la macha allah maa ngi xëy di liggéey di wàcc waaye dama xam ni DG li muy def il faut ñun jeunesse su ràññu leen ñu delloo ko njukkal ni ñu koy du leen mooy waa woote bis fekk ci ki nga xamante ni mooy kenn ci moom di Baye Fallam di taalibi Serigne Fallou di kenn si man di Pape Sarr ma bëgg ngeen tàccu ma Pape Sarr bu baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ni DG da leen yónni. bis ni ki tey nan jàpp ne Pape Sarr mooy Baye Fallam mooy lépp ndax Pape Sarr liggéeyam mooy yaatu tey jii ba law ba dugg bii randu leen tegu si loxo yi ki nga xamante mooy François di kenn ci man waa wa damaa bëgg ngeen tàcc bu baax a baax a baax François ndaxte nekk ci koñ di liggéey liggéey bu am solo donte ay jeune lañ ay xale yu tuuti lañ taxul ñu xam ban gëdd lañu am suñu koñ bii ba war a mën a taxaw jug dox pour suñu koñ bii di ranu leen noor ranu leen bi ñu gis ñu juddu fi yaru fi lu ñu am séddoo ko ak ranu leen bañ a dem fenn bañ a jéggaani fenn moo tax ñu ni tey jii dañuy ànd dañuy jug comme niñ ko baaxoo di def chaque jour liggéey pour suñu koñ jëm kanam muy randu len nor Serigne Cheikh nga fekk suñu ci biñu biñ togué waxtaan ak yow ni la ñun day suñu bébét moy nañ lañuy def ba randu len jëm kanam nga jox ñu conseil bu bu bu bu baax nga ni ñu kat ah ñun day dañuy yëngatu ci euh dañuy yëngatu ci wàll nga ni mo da ngay préparer journée tuddee ko delloo njukkal DG Sireja ak Cheikh sar, ñun ñu xamni Thiès kat yàgg nañ fee nekk yàgg nañooy suivre actualité politique yàgg nañuy topp waa Thiès ngeen xam ne nekkoon nañ ci ay couleur ñu ngi woon parti réew doon fa ay militant waaye tey jii bi ñu taxawee ba tey daw nañ dox nañ marche nañ ay leneen ak leneen loo xamante ni def nañ ko en vain dara fekkuñ ci lu dul lan tànk yi pënd rek a ñu ci topp dañoo sonn ci loolu. Ranoulen sonn nañ ci loolu moo tax tey jeune Ranoulen engagé wu nañ par ma voix par ma voix le mouvement des jeunes de Ranoulen Nord engagé wu nañ je dis bien par ma voix. mouvement des jeunes de Randu Leen engagé wu nañ dinañ jug taxaw ànd ak ki nga xamante ni moo bëgg Randu Leen avancé dinañ ànd ak DG Siré dinañ ànd ak DG Siré Dia dama koy wax bu baax parce que Randu Leen laa taxaw di wax te ku xam bu baax Randu Leen xam niñ fiy demee man may taxaw wax par la par ma voix jeune de Randu Leen Nord le mouvement des jeunes de Randu Leen Nord s'engage à être derrière le DG si Dia et incha allah 2019 dinañ xam ne randu leen ñu fi dëkk ko moom leen randu leen ñu fi dëkk la tey nag xëy na ñu ngi doog a jóg di wax pour fësal ko su euh, fësal suñu ànd ak DG Siré Dia waaye dañuy wax ni dañuy wax ni randu leen waa lu mu dugg dinañ xam ne ranu leen waa nga ca ndax dana ci taqrib ndax dañ ñun du ñu duggee ak lenn demi mesure dañ ciy dem ba mu jeex maa ngi leen di wax nag yen suñu papa yi ak yéen suñu yaay yi ngeen ñu gis ñu yeewu ci ay couleur dem nañ ba xamni ni garab bu la sutul du la may ker dem nañ ba xamni ni loxol kadior kat day weesaloo moo tax ñi ngi leen di ñaan ñi ngi leen di ñaanat di leen ñaaxaat ngeen ñew top suñu ginaaw ndax kat suñu ëllëgu randu leen gi duñ ko bàyyee keneen ku dul ñun ñi ñoo ci jóg doxal ko suñu bop te loolu duñ ko def ludul nekk ak derrière de le DG Siré maa ngi leen di remercier waat encore une fois maa ngi remercier Serigne Cheikh Niang parce que bu ñu demee ba mën a am opportunité taxaw devant tout le Randoulène bu ñu amee opportunité taxaw devant Randoulène gépp gannaaw yàlla ak moom mii moo tax affaire yi mën a nekk te ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen sant bu baax encore une fois man maa ko wax Yaxya Koté Sylla laa tudd Randoulène Nord léegi changé nañ ko couleur refusé nañ mandarin bi marron beige la ñuy peinture koñ bi yëpp engagé wu nañ nag

DG nañ jox nañ dooleel ñu appuyer ko incha allah 2019 nous serons vainqueurs incha seen bés bu toll nii ñëw taxaw man musuma dugg ci politique musuma politique ak kenn mais sama koñ dama fa am baat lu ma wax doomu aadama yi nañ ko def kon ñoom tey jii suñu amee seen bës bu toll nii woo ma ma ñëw taxaw seen ginnaaw luñ ma wax tey jii ma def ko. doon du ma sori dama naan ñoom. lu ñu wax ak lu ñu bëgg lu ñu ma wax tey jii ma defal leen ko. lépp ba tax na tey buñ ko tuddee drapeau tey man war naa mën a ñëw pësën ànd bi may ànd ak François ak nekkin gi may nekk ak François lu mu doon man duma quelqu'un Siré Dia ñëwoon na fii taxaw fii ñu face ñu taxaw face à face mu wax ñu ñu dégg mais dafa am loo xamante ne tey dafa nekk si ñii ñun waa doomi randu leen ñu war koo bàyyi xel aussi ñun randu leen gii sooy xool du ko dalee tali bële ba tali mañaa soirée du DG du ministre du dara lu fi dëkk te Randoulène il est temps mu dan moo war a mën a changé Randoulène ñun jeune Randoulène nii ñoo ko mën a changé te ni ñu changé booloo bokk ndey bokk bay xàccandoo dóorandoo li ñuy dóorandoo kese la ku ci ne li nga xam te ne mooy si intérêt bopp nga samb ko doxal ko parce que instant bii nii tey ku ci sa bët xonk amoo foo jëm bu ñu waxee dëgg daal rek tax te DG Siré Dia mi ngi Thiès di def ay gestes yoo xamante ni lu waaye fekk sooy nopp fekk sooy nopp xam ni xëy na exegul ci koñ bi te xam naa dina egg ci koñ bi message bi message bi àgg ci moom la man du ma waxantu. yaa ngi dégg dafa am loo xamante ni dafa nekk si Siré Dia muy ne que nee na Thiès da koo ñor bëgg a jàppale waa Thiès bëgg dimbali waa Thiès mais li yeneen kat yi di bénéficier wu dèjà ñu ngi liggéey. ñi ngi am ay emploi mi dimbali nit ñi ci financement yoo xamante ni jéggi na dayoo te ranu leen gi ñu nekk macha allah am na ay jigéen yoo xamante ni ñi ngi fi bëgg a liggéey bëgg ku leen jàppale bëgg ku leen dimbale te amaguñ ko. am na góor yoo xamante ne ñi ngi fii tey jii bari na fi ñoo xamante ni sawaay bari nay sëmër yoo xamante ni dañoo war a liggéey te yéen ñii ñëpp yéenay avenir ëllëg te boo xoolee fii ay jeunes kese ñoo fi ne amul mag te ku dimbali jeunes yi dimbali nga waa Thiès Thiès jeunes yi kese nañu war a dimbali yi ak jigéen ñi mu jeex mais nag xam naa ni xel ni ak DG Sénégal xëy na peut-être bu ñu ànd ak moom ñu lëkkaloog moom xëy na li ñu bëgg ñun ci tees gi war nañ koo mën a defal te ànd ak moom ci lenn kese la nañ koy tàllal loxo mu jox ñu loxo mu xëcc ñu ñëw moom ñu ci xëcc si mu jàppale suñu Thiès ranu leen noor gi mu avancé ñëpp jëriñu si ku ne jëriñu si ku ne gis sabab parce loolu moo doon kàddu yi maa ngi jégalu. waaw salaamaaleykum mbooloo mi bala ñuy tàmbali dama bëgg a wax ak sama gars yi accompagner mbër yi parce que maa ngi leen dégg sànq ba tey ngeen di wax. dama bëgg bala ñuy tàmbali pour wan leen li tax Siré Dia mbër yëpp war a jóg jàppale ko mooy drapeau bii nga xam ne moom lañ ko tuddee dafa ne damay accompagner mbër yi ci nan laa leen di accompagner damay bëgg mbër mu ci jóge am leneen la loo def moo tax combat bi mu digal ñu ne ñi ñaari mbër yi ku ci jël drapeau bi nga xam ne moom lañ ma tuddee ñu jagleel ko ko moom parce que drapeau bi dootul drapo Pape sar drapeau en mars vers 2019 ànd ak Siré Dia falaat Macky Sall Siré Thiès Siré Sénégal ndax Siré ngi fépp kon drapeau bi drapeau Siré Thiès la Siré Sénégal Siré na ci nag ñaari mbër yi képp ku ci jël drapeau bi dinañ la may permis de conduire ci oto école Pape Jean Paul II bi Théodore yor Siré ja moo def loolu nee na képp ku jël daan ci drapeau bi di nga am permis de conduire pour après nga mën a am leneen loo def parce que loolu ngay accompagner mbër. kon nag ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yeneen tam bu tedd bi sant sunu waajur dañu sant le promoteur Cheikh Niang le promoteur de la jeunesse ci turu directeur général Pape Siré Dia buñ ci jógee sant waa randu leen yépp jiital ci cant gi le responsable François Fall bi nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ji randu leen kenn dootu ko présenté ci entourage Siré Dia buñ ji jógee gërëm délégation Siré Dia bi mu yónni ñu toftal ci bopp délégation bi Ndey Daba Mbuub bi nga xam ne moo yor femmes yi ak sunu frère Modou Fall ak Lamine Gueye lu ba mi nga xam ne tamit sama magu bopp la du ma ñu koy ziar fu ma nekk mi ngi fa mën naa wax ne man moo ma tëgg ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm ngaari les dingi dégg nañu luñ fi dégg yëpp ci discours yi ralliement bi nga xam ne moo am la seenu randu leen di def pour jàppale ko directeur général dégg nañ ko ñun nag dañu profité ci bis bi pour wax leen ne. lancé nañu la plateforme Siré Thiès Siré Sénégal lancé nañu aussi la plateforme ànd ak sire Dia jël li des falaat Macky Sall moo tax ñu ñëwoon jël li desoon fii ndax ku suul nag ba mu des genn gi nga mën cee xëpp suuf te sire Dia gis nañ ko du tànkam lu kenn mooy njariñu Thiès enterré na ñi fi nekkoon viva moom la Macky Sall wóolu jiital ko ba yàlla defal ko ndam lii mu ne ndam li doyuma li doy mooy àndaat Macky Sall falat ko dès les premiers tours en 2019 lolo ma doy te lolo la bëgg def def ci ak sama liet naa yëpp kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yalla defal leen lu kawé sen ñort yalla yok sey xéewal ci barke Serigne Fallou yow le promoteur Cheikh ñang di nuyu waa randu leen yëpp di leen wax ne li lancement la on va accompagner tous les leaders comme niñ ñu leen defee nii en t-shirt dinañ leen accompagner waat accompagner ñi ngeen di àndal ci jouru làmb bi joxaat leen yeneen t-shirt ak appuyer leen ci biir yi jàppale leen ñoom ñëpp comme ni ñu ko Siré Dia sant kon sant nañ leen gërëm nañ leen ñu ngi ñaanal ñëpp wasalaam on remercie